salaamaaleykum aduna salaamaaleykum Sénégal man la Jadre bu Dakar FM di leen ziar et puis di remercier bu baax baax Pape Diouf mi initiative bi jël soirée bi tuddee ko ñëpp ñuy yëngu ci wàllu animation ñu koy rafetlu bu baax a baax Pape Diouf tey jii su jëlee soirée bi jagleel ko ñëpp ñuy yëngu ci animation jagleel ko ñëpp ñuy yëngu ci animation euh, du ma wax ni na bi xoromam wante. Euh, suukar na soow mi loolu nga mën a wax ba mu gën a neex a naan ndaxte ñoom daanaka tey jii nii ñoom ñooy eh, xeltu xalaat dem euh, def ko ci euh, support indil ñu mu nekk album wala mu nekk single su ko defee ñun aussi tamit ci li ñu yàlla may ñu toog daal di koy bokk ak ka ak auditeurs yi kay déglu kon ñoom tout le temps rek ñu nekk ñoom ku si ne day complété moroomam ba tax na su defee lii ñun mënuñu lu dul sant yàlla quoi ak tamit euh, remercier ko parce que loolu xalaat bu rafet la te it dafa war a nekk lu loo xam dafay continuer di dem war na am acte un acte deux ba fu mu mënti am euh, et que mu nekk loo xamee ni que vraiment ñun ñëpp dañ ciy sant bu baax a baax te it euh, def ñuy waaw góor. Euh, wax deug yalla dana doli jom ndaxte nak dana tax ñu xam ni ñun euh, ràññee nañ ñu ci réew mi ba nga xamé ni nit ñi dañu delloo li ñu moom kon def na ni Pape Diouf ji ni bu ci jéké wala mu jitu ci def lu ni mel a ah, ñu dañuy sant yalla bu baax a baax. moi je pense que ni ñun ñoo daan am ay initiative diko def ñun en tant qu'animateur mais bu kat jógee ni tey ji dama koy def pour animateur yi euh, j'ai pas souvenance ci année yi passé ni am na kenn ci ñoom koo xamee ni que mës na ko def mu dégg ko xëy na mës na am te dégguma ko mais pour la première fois euh, kii bii nii mu am nii impact bii nii mu am nii euh, ci pap Diouf laa ko jëkk dégg ñu koy ñaanal xam nga artiste bu ne baat bu wér lay ñaan ak tamit euh, yàlla dolli ko inspiration ba lépp loo xamee ni que rek moom la sumb muy album muy single alors suñ borom teg ci loxo affaire bi daal di jolli ndax bu gën a neex. ah sunu gaal suñuy xarit yi yéen waa Sénégal à ah, ñu ngi le 29 juin Bi, le 29 juin Andrandok Pape soirée sargal Bep animateur. est-ce que le 29 doit embouteillage entre 5000 VIP 10 000 DJ de. le 29 Le